asalaamualeykum mbokki Sénégal asalaamualeykum mbokki àddina ñëwaatuma tey pour jox leen leçon de morale dama ñëw rek pour encore indi ay leeral ci li nga xam ne moom la président Macky Sall ak ñoñoom di def te may wax encore sénégalais yi pour ñu xam ban droit la ñu am pour génn suba résister jusqu'au départ de Macky Sall dama bëgg ngeen xam ne résistance bi ñuy woote melul ni benn résistance dans l'histoire du Sénégal dama bëgg sénégalais yi ngeen déglu bu baax dama bëgg ngeen xam ne lii ngeen di dégg ñoom ñuy wax yépp ak dëkk yi ñu jàppee idole yépp amul benn loi ci àdduna bi muy ci Amérique wala muy ci France bu mën a toxal ay élection présidentielle xam nga ñiy wax ak yéen dama bëgg tey boo leen di wax ak seen naataango wala seen dëkkandoo wala seen xarit mu naan leen waaw xam nga loi bi waa PDS nangam ne leen dama bëgg nga wax ma ci ban loi la basé wu ak ci ban réew ci àdduna bi ngeen mësay gis ay élection présidentielle yu ñu mën a toxal amul fenn ci àdduna bi amul fen maanaam amul benn argument boo xam ne mën nga ko argumenté buy légaliser toxal élection présidentielle moom Macky Sall xam na ko Ismaïla Madior Fall xam na ko d'ailleurs ñoom ñi ngay wax yëpp kenn mënu koo défendre amul kenn ku mën a défendre toxal élection présidentielle xam nga lan mooy seen kàddu bi gën a fama dañuy ne yoonu président nekku si waa PDS ñoo jël initiative bi déglul de dama bëgg sénégalais yi ngeen xam loolu saa bu ñu waxee waxu toxal élection Macky Sall ak ñoñoom dañuy gaawantu ñu ne la ah non ñun suñu yoon nekku ci président waxu ci waaw loolu initiative waa PDS la parce que xam nañu ne amul benn légal amul benn légalité amul benn loi ak benn base bu legal bu mën a toxal ay élection d'ailleurs loolu moo waral ma wax leen tey li xew fii ci Amérique déglu leen dama leen di wax tey ñaari sénateur yi gën a am doole ci foreign maanaam euh, les membres de la commission des affaires étrangères foreign affairs committee déglu leen foreign affairs committee xam nga lan la ñu décider dañu ne déglu ma encore une fois les États-Unis les deux plus puissants membres de la commission des affaires étrangères du Sénat viennent d'introduire une résolution résolution bi ñu introduire historiquement concernant le Sénégal ma ne musul am ci histoire Amérique Sénat Amérique di jël loi di ko introduire di ko jëmale ci benn réew spécifiquement dama bëgg ngeen déglu loolu maanaam Sénat Amérique musul am ci histoire Amérique Sénat Amérique di jël loi spécifiquement di ko baaxee réew dama leen di wax danger bu nekk ci loolu xam nga Macky Sall ba mu commencé tàmbali jël sénégalais yi di leen accuser de terrorisme di leen jàpp di leen jaay doole sénégalais yi bu ñu génnee ñu mate leen ñoom pour ñoom bêtes qu'ils sont bu ñu teree sénégalais yi génn di leen lacrymogène di leen dóor adduna bi duñ ko gis Macky Sall dafa defe ne lépp lu muy def ci suufu lalam la koy defee moom fàtte na ne dafa am lu tudd réseau sociaux tey muy dox ci àdduna bi maanaam lii xew marché Sandaga sax président Amérique bi xam na ko lii xew marché Tilène président Amérique bi xam na ko lii xew ci mbeddu Dakar yi président Amérique bi xam na ko lii xew ci biir duusu nit ñi sax président Amérique bi xam na ko loolu mooy problème bi gën a rëy bi nga xam ne moom moo sonal Macky Sall ba léegi moom mi ngi ci logique dégg ngeen démb ndeysaan journaliste français bi bi mu interviewé Abdou Mbaye mu ne ko dama bëgg ngeen wax ma ci ban base bu légal ngeen ko teg pour toxal élection yi xam nga kooku lim ko wax waaw boo ma déglul ma argumenté doo comprendre ñoom comprendre ñu ne adduna bi xam nañu aussi ne que c'est des manipulateurs xam nga Amérique boo demee justice lu ñu lay def procureur bi da lay laaj question yow boo fa nekkee naan ko sama maam nii la mel waaw sama nijaay mu ne la objection stay to the question and respond to the question xam nga loolu mooy lan mooy réponds à la question qu'on t'a demandé et concentre-toi sur la question qu'on t'a demandé Abdoul Mbaye ñu laaj ko ñu ne ko ci ban base bu légal ngeen basé wu pour toxal élection yi ci Sénégal moom ndeysaan konkile defe na ne noonu wax na ba wër àdduna bi ak ay fenam moom Abdoul Mbaye defe na ne wax na ba wër àdduna bi ak ay fenam defe na ne àdduna bi gëm nañ ko parce que moom biñ ko laajee ñu ne ko hee ci ban base bu legal ngeen basé wu pour toxal élection Sénégal yi mu ne journaliste bi waaw soo ma dégluwul ma argumenté doo comprendre li may wax pourtant de journaliste bi question bi mu ko laaj se très clair Abdoul mbay bu amoon argument daf koy ne ci loi bii lañ ko basé ci argument bii lañ ko basé waaye xam nga lu mu def mu wër ko waaw waa PDS ñoo mer waaw waa PDS bi ñu meree waaw nangam nangam bi ñu meree ñu introduire loi loolu du base bu légal loolu il faut sénégalais yi ne ki ñu koy sekkal nii moom comprendre luy base bu legal moom il il marche dans l'émotion Macky Sall ci émotion lay marché moom comprendre légalité ak émotion man tey sama doom mën naa ñëw def ma dara ma xaañ ko sama doom la maa ko jur mais dans la loi c'est pas légal loolu légalul parce que tey loi bu ma jàppee du ne du sama doom de daf may ne lan moo tax nga def ko lii il faut ma indi argument bu légal si c'est légal ou pas pourtant de c'est légal ñu ne la Amérique nga jël sa loxo tàpp sa taatu doom mais c'est pas légal nga jël ceinture dóor sa doom ba gaañ ko lool c'est pas légal donc c'est légal que Macky Sall en tant que président de la République mu gis ay faay mu bind ko mu relever ko ne ah bàyyi leen xel ci lii beneen président bu ñëwee mu continuer loolu nga xam ne loolu la Macky Sall la tàmbali mais amul benn baas bu légal bu mën a tax ñu toxal ay élection il faut nit ñi xam loolu amul benn nit ci àdduna bi boo xam ne constitution Sénégal may na la màqaama ne la bu la neexul boo yaakaaree ne waaw corruption boo yaakaaree lii ak lii mën nga toxal ay élection loolu amul ci loi Sénégal voilà du Abdou Mbaye Abdou ab du Mbow Mbow ngeen jéggal ma du Abdou Mbaye Abdou Mbow voilà jéggal leen Kirikou le petit là dama bëgg sénégalais yi xam ne lii nga xam ne moom la Macky Sall di def amul benn base bu légal bu ko ko mën a may te àdduna baa ngi leen di xool dama bëgg senegal ngeen déglu ma le la le monde vous regarde lépp lu kew senegal àdduna bi xam nañ ko lépp lu Macky Sall def ku mu jàpp ku mu tooñ ku mu jéem a jaay doole lépp àdduna bi xam nañ ko nitu makki sàll yi xam nañu ne li Macky sàll di def c'est pas légal Ismaïla Madior Faye xam na ko Macky sàll ci boppam xam na ko ñi ko wër xam nañ ko te tegu ko ci benn base bu légal ce que Macky Sall est en train de faire au vingt et au Sénégal C'est ce que les dictateurs et les plus grands dictateurs faisaient dans les années 60 et dans les années booba réseaux sociaux amul booba bu ñu defee caaxaan yu mel noonu amul benn doomu aadama bu koy fësal pour àdduna bi gis lii dëgg loolu moo tax Macky Sall bête qu'il est il n'a pas compris kile est au vingt et siècle muy jéem a napp sénégalais yi ba léegi mais ce que je veux dire à mes frères sénégalais dama leen bëgg a liiral li nga xam ne loolu la Macky la wax ci conseil ministre yi passé defe naa yéen ñu bari gis ngeen ko nee na yaa yoo déglu leen ko président de la république mu ne déglu leen ko mu ne le président de la république a profité du conseil des ministres pour se défendre contre ceux qui le soupçonnent d'avoir reporté les élections présidentielles pour prolonger son bail à la tête du Sénégal mu ne c'est insensé à lancer le chef d'État à l'endroit des pourfendeurs au cours de la réunion du gouvernement est-ce que xam ngeen ne Macky Sall Amadou Ba la jiiñ corruption Amadou Ba ministre am premier ministre du Sénégal moom la ne ñoom ñoo corrompre ay juges conseillers constitutionnels xam ngeen premier ministre boobu ba léegi fi mu nekk mi ngi liggéeyal Macky Sall Macky Sall dafa ne sama premier ministre man dafa sàcc ay milliards jël ko jëndee ko ay juge pour corrompre élection yi donc damay toxal élection yi waaye sama premier ministre boobu ba léegi daf may liggéeyal maanaam sàcc bi nga xam ne moom la jiiñ sàcc moom la ne moo corrompre ay juge nee na ba léegi kooku da koy liggéeyal waxoon naa leen ne Macky Sall mi ngi ci projet wu assassiné Amadou Ba loolu changé wu la ça n'a pas changé ndax daf koy nax teem ko nooyal ko ba mu gën koo jege ba mu gën koo jox confiance comme ça mu rey ko rey bu yomb maanaam posone ko wala def ko benn affaire boo xam ne Amadou Ba day dee wu nelaw parce que xar la et il le mérite moi je supporte que Macky Sall tue Amadou Ba moi je je je le supporte parce que doomi xaram moom saa buñ ko reyee ci dëkk rek benn doomu xaram moo wàññeeku moi je supporte mois je supporte vraiment que Macky Sall assassine Amadou Ba moi je le supporte je soulève la main et je le jure billahi je le supporte parce que Amadou Ba ñi ko wër sax ay doomeeram la xam ngeen ñan ñoo wër Amadou xam ngeen Amadou Ba ñan ñoo ko wër vous connaissez les gens qui qui encerclent Amadou Ba loolu dinaa leen ci defal benn live bu spécial Amadou doomi xaraam yi gën a corrompre ci Sénégal la jël ñu wër ko ñoo ko doon baatal campagne les personnes les plus tordues du pays ñoo fi nekkaloon Amadou Ba mais gars yi damay continuer Macky Sall nee na en tant que chef d'État mu ne la même source Macky Sall déglu encore président de la République trouve improbable qu'il s'accroche au pouvoir alors qu'un champ d'opportunité de carrière post-palais mu ne moom dafa am champ d'opportunité post palais mu ne moom bu génnee ci palais bi am na ay opportunité yu koy xaar ci àdduna bi <laughs> laajal leen ma Macky Sall ban opportunité la boobu parce que Nations Unies la doon wër boobu toj nañ fi cottu ndeyam ba mu ñëwee wan nañu àdduna bi quel genre de corrompu il était fii mënu fee am xar Nations Unies bu New York fii mënu fi am dara donc laajal leen ma Macky Sall yan opportunité lay wax noonu parce que doomam Amadou Sall dama leen di wax sénégalais dama leen di jox benn information Amadou Sall ba léegi dese na quelques oto ci parking am bi mais daw na toxal na parking am bi Côte d'Ivoire le parking de Amadou Sall est déménagé en Côte d'Ivoire Amadou Sall mu Macky Sall mi ngi déménager ay ay bien Côte d'Ivoire déglu leen ma sénégalais le fils du président Macky Sall, Amadou sal est en train de déménager ses biens en Côte d'Ivoire. Amadou Sall mi ngi déménager ay bien am Côte d'Ivoire dama leen bëgg a wax ngeen laaj yéen lay waxal sénégalais ban opportunité mooy xaar Macky Sall ginnaaw bu wàccee ci présidence de la république bi dama bëgg àdduna bi yëpp ngeen wax ma ko soo leen ko xamee man xaw ma ko benn doomu seregale yi dama bëgg ma yëgal leen dara continuez de faire vos manifestations même dans les réseaux sociaux information yi ngeen di génnee di ko leeral ci Macky Sall ci nit ñi mu rey ci nit ñi mu gaañ ci nit ñi mu noot ci réseau yi bu leen def yenn image yu vulgaire yi parce que man na leen indil maanaam ñu ñu attaquer seen page yenn image yu vulgaire yi bu leen ko def mais lépp luy violence policière Macky Sall fi muy wéqee nit ñi fi ñuy jàppee doomu aadama yi di leen dóor fi ñuy jàppee doomu aadama yi di leen gaañ fi ñuy jàppee doomu aadama yi di leen di leen di leen di leen torturer génnee leen ko adduna bi gis ko Macky Sall président bu dee la président bu daanu la te moom xam na ko nitu Macky Sall il s'accroche tout simplement au pouvoir parce que rawale wu ñu woon seeni ay alal ba mu jeex dañu bëggoon sàcc élection yi jox ko Amadou Ba après la ñu comprendre yi buñ ci demee à quatre-vingt-cinq pour cent au premier tour ils vont le perdre donc Amadou Ba du ñu mën a sàcc ay élection donc seen alal yi nekk Sénégal yëpp day nax say Macky Sall dafa jënd temps pour daw rawale seen alal yi ba pare jéem a éliminer opposants yi nga xam ne ragal na jàmmarloo ak ñoom pareegul de bu paree buñ ko bàyyee nii dama dama bëgg ngeen xam sénégalais lay waxal yéen ñëpp nag opposant sénégalais yëpp lay waxal nag Macky Sall son premier plan c'est de dissoudre l'Assemblée nationale bu paree bu dissoudre assemblée nationale mu dissoudre conseiller constitutionnel ba pare nag mu teg ay loi yoo xam ne ay député dootuñu pare ne du nekkati na député fàttaleku leen France amoon na benn temps boo xam ne élus locaux yi ñoom ñooy parrainé Macky la dafa def sondage ñu ne ko lan la mën a def ba éliminer tous ses opposants mu ne day ne élus locaux yi ñoom ñooy parrainer bu leen fàtte loolu élus locaux yi la bëgg a utiliser pour ñu pare ne te nombre de élus locaux bi muy joxe day fexe ba mu méngoo ak nombre boo xam ne Pastef du ko am déglu leen ma encore nombre de élus locaux bi Macky Sall fas yéene indi ci parrainage yi ñëwaat Déthié Fall du dem Abdourahmane Dieye du dem maanaam tous ces opposants la Anta Babacar Ngom du dem Mame Boye Diao ñii yëpp benn opposant du dem Macky Sall mooy dem ak quelques bouffons mu tànn ñaari bouffons boole ko ak ki nga xam ne ñoom ñooy ay dauphinam ñetti candidat wu Macky Sall lay doon ak peut-être beneen candidat boo xam ne yoonam newu ci mooy li ñu doon wax avant lii lañu ñu Macky Sall yóbbu dama bëgg ngeen déglu ma encore Macky Sall fi mu ñu jëmale dafa bëgg a tëgg ay élection yoo xam ne ñeenti nit ñoo ciy bokk je si bien informé et je vais vous rappeler encore te ñeenti nit yooyu ci bokk candidat yi nekk ci présidentielle bi yëpp benn du ci bokk donc vous vous battez pour votre vie et votre existence troisième mandat la Macky Sall di waajal quatre candidats lay am quatre candidats gis ngeen moom ak Amadou Ba Amadou Ba xar la béyam la delluwaat na encore ci Macky Sall gis ngeen ko Amadou Ba delluwaat na encore ci Macky Sall ak ay jëfam yu bon delluwaat na parce que sàcc ak sàcc nee naa leen Macky Sall ak Amadou Ba mënuñoo divorcer na rek la mën a def daf ko bëgg a daf ko bëgg rey daf ko bëgg a rey Macky Sall ak Amadou Ba rey rek la ko mën a def mais du séparé ak moom parce que Amadou Ba li mu xamal Macky Sall dafa bari Macky Sall li mu xamal Amadou Ba dafa bari ñoom ñaar bis bu ñu tasee senegal jeex tàkk donc Amadou Ba Macky Sall daf koy nangul yi mu koy nangul parce que daf ko bëgg a posone est-ce que xam ngeen ne les deux ennemis les plus grands du senegal mooy Marème Faye Sall ak jabaru Amadou Ba ñaar ñooñu du ñu laalante da doon tat ci cooda jabaru Amadou Ba ak Marème Faye Sall du ñu laale safara la ak essence man mii di wax ak yéen mën naa leen wax ne xam naa une cinquantaine de personnes boo xam ne Marème Faye Sall moo leen armé contre Amadou Ba Amadou Ba def même chose armé une cinquantaine de personnes contre maki Sall donc Macky Sall ak Amadou Ba maanaam dañu àndaat parce que tout simplement li ñu xamalante dafa bari mais maki Sall mi ngi ci projet wu assassiner Amadou Ba ba léegi bu leen bett di ngeen dégg que maki Sall jël na bakanu Amadou Ba avec intelligence nag comme ni mu ko defee woon euh, ak yeneen maanaam dina jël bakkanam dof-dof lu mel ni dara xewul comme ni mu ko defee ñoom Pakoti ak ñoom Sidi Lamine ñas ak ñoom In Sène Macky Sall moo rey Sidi Lamine Niass rey rappeur boobu Pakoti baaba kana moom bosam daf leen rëcc parce que boobu dañ ko dóor bal ba cagu ndar kam rey nag am na beneen soxna bu fi noon aussi di wax ci mbiru Ousmane euh, euh, maanaam Imaam Ndaw boo leen ko fàttale ko soxna soosu tamit ba mu waxee ci mbiru Imaam Ndaw boobu ak bañ koy posone benn la ak yeneen nit bari na nag maki Sall sénégalais yéen a yéex a xam ne rey katu nit la yéen a ko yéex a xam mais Macky Sall a assassiné beaucoup de sénégalais balaa avant qu'on se compte avant ñun ñuy xam ne maki Sall nit ku bon la rey na sénégalais yu bari waaye léegi damay wax ak sénégalais yi pour ngeen comprendre ne suba c'est un jour historique dans notre histoire Amérique mi ngi ñuy xool France mi ngi ñuy xool adduna baa ngi ñuy xool bu ma nee France waxuma ci Emmanuel Macron parce que il faut ngeen fàttaliku ne dans les démocraties dans les plus grandes démocraties du monde dafa am maanaam pouvoir am contre pouvoir ak juge Samba Sall exactement ak DJ Badji ak Fulbert euh, Sambou ak ñeneen yana yana tàndoot dama ne yaayam sax moo ko rey moom Moussa Fall pour won leen sadik Moussa Fall moo rey ndeyu boppam ndey ji bi muy dee ndey saan daf ko ne Moussa li may dégg ci àdduna bi nii yëpp li may dégg ci lu bon nii yëpp yow yaa ko def Moussa Fall ne billaah yaay def ma ko yaay ji génn àddina bu fi man moom xam na li may wax Moussa Fall moo rey yaayam moom ndeyam ndeyam bi ko jur moo ko rey donc bu sénégalais yi di toog fii di xalaat ay Moussa Fall ak rey nit da ngeen di caaxaan et vous n'avez rien compris pour le moment Moussa Fall man na rey ñëpp man na rey senegal ba ñu jeex takk mu jaale leen lekk seen yàpp te toog naan ndoxam bu sedd te dara du ko ci fekk moom ci xalaatam donc may waxaat sénégalais yi encore une fois Cheikh Béthio exactement ñi Macky Sall rey yéen a ngi ñëw yéen a ngi bind xam nga yéen a ngi bind ñi ñu ngi bind Cheikh Cheikh Béthio ñi ñu ngi bind Samba Sall képp ku leen reyam jaaxal ci Sénégal Macky Sall moo ko assassiné sénégalais yi nag ñoo xaw a yéex a yeew Alioune Badara Cissé voilà vous voyez dem leen rek vous allez écrire tant d'autres xam nga yéen a ngi yeewu léegi sénégalais baa ngi yeewu keroog dégg naa sama frère Ngagne Demba Touré di ko massawu de passage comme ni ma leen ko waxee rek ñun ba léegi duñ leen wax de waaye je vous dis que li ñu xam ci Macky Sall ak reyam nit dafa jaggi dayoo sénégalais yéen laay waxal doomu Sénégal yéen laay waxal doomu àdduna yéen lay waxal dama bëgg ngeen xam ne on n'est pas dans une dans un gouvernement normal ànduñu ak nguur gu normal sambalaw Laobé Dieng merci continuer leen xaajul bay jeex xaajul bay jeex kii mooy Macky Sall xaajul bay jeex sénégalais imam ndaw xaajul bay jeex nañu dem rek xalif généro yëpp Macky Sall dina leen assassiné xalif généro yëpp am na xalif généraux yoo xam ne génn nañ ci tarixa yu mag sax nee nañu bileen leen Macky Sall demee seeti ak yooyu ca la ñu génn àddina Mariama Sagna ak tant d'autres continuer rek Ousmane Tanor Dieng continuer leen continuer leen lim lim bi pareegul continuer leen maki Sall li mu rey ci doomu aadama ci Sénégal kenn xamul nu mu toll Fulbert Samb boobu limoon nañ ko ngeen yaakaar ne maki Sall faale na kenn ci ñun ngeen yaakaar ne Macky Sall faale na intérêt Sénégal ngeen yaakaar ne Macky Sall bëgg naa changer Sénégal pour bu baax moom nee na Sénégal njabootam lañu ay doomam lañu moom il a oublié que c'est un pays démocratique qu'il a élu ngeen yaakaar ne Macky Sall c'est une personne qui va changer ce pays frères sœurs sénégalais et sénégalaises frères et sœurs sénégalais et sénégalaises ngeen yaakaar ne Macky Sall mii pare na pour changer Sénégal non non non damay ñaan doomu sénégalais yi suba ci àjjuma ji comme ni ko Mali defee woon Burkina def ko Tchad def ko Niger def ko réew àddina yi bëgg changement yëpp jóg def ko Guinée defoon ko senegale yëpp lañuy ñaan ngeen jóg suba sama yaay sama doom sama mag sama rakk yi yéen ñëpp la woo pour dajaloo boo xam ne moom mooy génnee Macky sàll ci Sénégal gouvernement Amérique bi dànkaafu nañ ko nee nañ ko bu mu laal benn doomu aadama dina jéem nappate yi xam nga gendarme yi pousse fii pousse fële dinañu jéem ils vont essayer mais na vous en fait pas vous êtes protégés et le monde regarde dama bëgg ngeen xam ne adduna baa ngi xool le monde regarde le monde est en train de regarder Macky Sall adduna baa ngi xool Macky Sall adduna bi baa ngi koy bàyyi xel damane àdduna bi ñu ngi bàyyi xel Macky Sall ñu ngi woo ñëpp demain à la place de la nation à la place de la nation ñun ñëpp sénégalais yi dinañu leen bett Sénégal kenn du ko libéré suñu ginnaaw incha allahu rabbi xam nga man daan naa wax sénégalais yi toujours nee naa leen lu yomb kenn du ko woote bu ma daan wax oh damay ñëw ñu ne noo bul ñëw noo bul def nii ne vous en faites pas Macky Sall man ñi ma gën a ragal ci àddina moom ci la bokk moom ñemewu ma man man je suis pas en exil man sama emploi du temps sama loxo la nekk man gouvernement Sénégal amu ci benn nit bu am bu ci cuccoom toll nii bu ma mën a laal ñëw naa Sénégal ba dem ñemewu ñu maa jege bu ma ñëwaatoon Sénégal ba daan fa fonde ñemewu ñu maa jege mois je suis bien préparé gouvernement Sénégal du ñu nelaw dès que ñu xam ne Ousmane Tounkara mi ngi ñëw dootuñu nelaw dootuñu doxot dootuñu puub ils seront perturbés man dama man gouvernement Sénégal ma dara croyez-moi ñu ma dara dara amul dara loo xam ne gouvernement Sénégal mënal nañ ma ko d'ailleurs sax dañ ma ñemewul man man su ma ñëwoon dañ may xàllil yoon daw ñoom ñëpp ay daw seen coow lu bari li yëpp coow la rek je vous promets que les sénégalais incha allahu rabbi di ngeen ba am du yàgg dara je serai sur le terrain avec mes frères et sœurs di ma am ça c'est une promesse musuma leen promettre nag loo leen amul lii man maa leen ko promettre di ngeen ma am léegi ci seen kanam bu soobee yàlla tey Macky Sall du nelaw ci palais bi man waxoon naa leen ne senegal buy libéré wu je serai bu leen dara naqari je serai ne nañu préparer seen lammi ñu yi di ngeen soog a xam ne Sénégal ndekete ay tappet ak ay bouffant rek ñoo fa nekk su ma ñëwoon weñ du jege yoo du jege man maa leen ko wax toog leen yéen ñëpp ngeen préparer ce vendredi on invite tous sur la route déglu leen ma encore une fois dañu invité Sénégalais yëpp sur la route dama dama ne sénégalais yi laay wax dañuy libérer Sénégal par force maa ngi ci samay arrangement yu mujj wax nag day laaj dégg-dégg je suis dans mes derniers arrangements je vous promets qu'on va faire tomber Macky Sall les sénégalais on vous invite sur la route pour libérer notre pays dama ne nañu génn libérer suñu réew suba ci ajuma ji sénégalais yëpp lañu ñu invité ci mbedd mi pour libérer Sénégal sénégalais yëpp nag lañu invité pour libérer Sénégal rassemblement libération la dama ne dama ne dégluwaat leen ma bu baax lii sunu xeex la kenn duñu ko xeexal sénégalais yi lay waxal de lii suñu xeex la kenn duñu ko xeexal lii suñu libération la kenn duñu libéré ku du ñun ba ma leen diggee ne dinaa ñëw Sénégal j'étais avec vous et quand je vous promets que je serai bientôt avec vous rassurez-vous que je serai avec vous seen inquiétude denc leen ko man maa ëpp sécurité président Macky Sall je suis plus sécurisé que le président Macky Sall gardez vos inquiétudes dama ne suba doo gis ci ay live suba doo gis benn sénégalais ci ay live tous les sénégalais seront dans les rues du Sénégal dama suñu yaay sama yaay yi képp ku gëm projet bi képp ku gëm ne Sénégal buumu njaam dafa war a dagg ñun ñëpp nañu daje ci tali dama leen koy ñaanaat je suis dans mes derniers arrangements gouvernement Macky Sall mënatuñu ma laal mënaluñu ma dara nelaw leen man maa gën a sécuriser Macky Sall je viendrai vous libérer dama ne population sénégalaise préparez-vous préparez-vous dinañu ñëw libérer suñu dëkk dama ne pare leen on va venir libérer notre pays ñun duñu toog bitim réew di toog di xaar sénégalais yi ngeen di torox on viendra vous libérer dañu doon xaar Macky Sall mu defaat benn pas boo xam ne day franchir li nga xam ne moom mooy bafouer nos droits et on fera face bu dara tiital nag je vous promets bu dara tiital du GIGN du gendarmerie du police Macky Sall il saura qui nous sommes ñoom moom dina xam ñun kan lañu ñaata at ngeen ma dégg may wax fii te Macky Sall mënalu ma cottu la fal ndeem garantiral naa leen ne dinañu libérer Sénégal je vous promets doomu sénégalais yi lay ñaan ngeen góorgóorlu ngeen xar seen tànku tubéy il faut ñu libérer Sénégal dama leen bëgg a yëgal loolu il faut ñu libérer suñu dëkk dama ne il faut ñu libérer suñu dëkk te sama kenn du ko libérer sama ginnaaw loolu man maaleen ko promettre dama leen promettre ne sama dëkk duñ ko libérer sama ginnaaw déedéet mon pays sera libéré et je serai là man maa leen ko promettre je vous promets que dinañu libérer Sénégal incha allahu rabbi on va libérer le Sénégal ensemble dame tout le monde dama leen ne yéen ñëpp sénégalais yëpp lay woo bi ma ko waxee deux mille dix huit fii la ñu yoroon seen làmmiñ oh mënul dem du ñëw ah du nangam on verra bientôt tey seen doxot tey du ñu nelaw man maa leen promettre ne tey Macky Sall du nelaw ay ministre am du ñu nelaw ay gendarme am du ñu nelaw parce qu'ils sot diront que kii waa ji kan moo ko yónni ci ñun nee naa leen ñeme ñu maa laal man maa leen garantiral ne dama bëgg a rassurer le Sénégal que je suis en sécurité je suis plus sécurisé que Macky sal wax nag dégg-dégg la laaj on est dans les dernières préparations ci dernière préparation yi la ñu nekk je vous garanti que incha allahu rabbi on va libérer le Sénégal dinañu libérer Sénégal dama ne suba tout le monde à la place de la nation suba Tout le monde à la place de la nation. Tomorrow, everybody in the nation's place. Suba, tout le monde la place de la nation pour libérer notre cher Sénégal. ñun ragaluñu Macky Sall Macky Sall baayam moomul Sénégal Macky Sall moomul Sénégal Macky is going to be destabilized incha allahu rabbi parce que il a violé notre constitution et on ne laissera pas faire Macky Sall incha allahu rabbi danañu pare ak moom ci nii suba wala ci naa ci moom la dépendre mais damay woowaat doomu sénégalais yi yéen ñëpp encore tout sénégalais digne du nom ak fu waay mën ne ak lu waay mën a def xam leen ne on n'est plus sécurisé que Macky Sall le Sénat américain nous a donné des garanties Le Congrès américain nous a donné des garanties. Et les Sénégalais, on est sécurisés. ñun nag ñun ñoo war a jël notre destin en main pour libérer notre pays. dama ne encore une fois nañu jël suñu destin en main libérer suñu réew. bandi bii nekk ci boppu réew mi on va se débarrasser de lui une fois pour toutes. il n'est plus un président légitime. c'est un ex-président amul benn légitimité mu laal benn doomu sénégalais dafay dof-dof rek li ngeen di gis muy def noonu ay conseil de ministre ay wax ndànk ak ay reetaan déedéet day soob rek dama leen ne loolu manipulation la da leen di manipile rek loolu ngeen gis noonu maanaam reetaanu gàcce la reetaanu torox tànge la reetaanu jaaxle la loolu ngeen gis Macky Sall di def noonu he scared sénégalais et sénégalaises suba deux millions de personnes dans la rue de, du Sénégal pour libérer notre pays sama yaay yi sama doom yi sama rakk sama jarbaat suba ñépp la ñu woo les leaders politiques les leaders politiques the political leaders of Sénégal les leaders politiques na ñëpp génn les régions les départements que tout le monde sorte demain bu benn sénégalais toog këram amul benn raison buy tax ngeen toog seen kër il est temps de libérer notre pays Macky li mu def amul benn luwa amul benn président bu ko nangu ci àdduna bi amul benn loi bu nangu toxal ay élection dama bëgg ngeen xam ne amul benn dëkk déglu leen ma encore ci àdduna bi amul benn réew ci àdduna bi bu loi am bu mën a toxal ay élection loolu foo leen mën a dem ci àdduna bi rassurez-vous amul benn dëkk déglu leen ma encore une fois amul benn dëkk ci àdduna bi fu toxal élection legal amul du Amérique du Europe du Asie du Océanie du fenn amul benn dëkk ci àdduna bi bu ay toxal ay élection légale amul fenn yana pas sénégalais yi waxal nag les fils dignes du Sénégal je m'adresse à vous pacifiquement à vous Amérique aussi ñu ngi woote marche samedi France ñu ngi woote marche samedi samedi Amérique à la 116 waa France aussi ñu ngi woote marche c'est pour le départ définitif du président Macky Sall y en a rien à négocier élection février par force Macky Sall abal ñu le 2 avril loolu la woote sénégalais yi partout la où vous il faut kenn ku nekk ci ñun jël ay responsabilités kenn ku nekk ci ñun xam ne Sénégal ñun ñëpp a ko moom amul benn doomu aadama bu ñu mën a xañ suñu àq ak suñu yelleef amul ci Sénégal amul ci Sénégal benn doomu aadama Macky Sall fi may wax ak yéen nii réew yi kenn welkomatu ko maanaam kenn Macky Sall n'est plus le bienvenu dans quel que soit dans quel pays du monde fi mu toll nii fi may wax ak yéen Barcelone aussi on dit il appelle samedi à 16h à la place de Catalogne sénégalais yépp la ñuy woo dans la diaspora dans le pays que ñun ñu taxaw ñu libérer suñu dëkk Sénégal ñu ngi woote pour libérer le pays élection présidentielle le vingt cinq février Macky Sall mënu koo toxal amul maqaama bu koy toxal doomu sénégalais yi laay woo digne du nom que ñun ñëpp ñu taxaw par force nag parce que li suñu àq la ak suñu yelleef du lu ñu kenn jox du lu ñu doon suñu àq la ak suñu yelleef du lu kenn jox du lu ñu donn suñu ak la ak suñu yelleef du lu ñu kenn jox du lu ñu donn sénégalais pour ngeen xam ne dama bëgg ngeen déglu Ismaïla Madior Fall ci boppam pour mu leeralal leen li nga xam ne moo nekk report élection manul am ci àdduna bi légalul fenn voilà déglu leen déglu leen déglu leen ma tagal leen ngeen dégg. donc le président il est ancré sur deux choses l'autorité de l'État on ne négocie pas avec l'ouverture au dialogue d'où le dialogue. Et vu le démarrage du la situation peut-on envisager un report de l'élection présidentielle. c'est pas envisagé jusque deuxièmement vous la date de l'élection présidentielle c'est dans la constitution. Mm. que c'est fixé donc euh, euh, au Sénégal il est facile de reporter des élections locales. territoriale maintenant on dit. Mm. Il est facile de reporter des élections législatives. On peut, par une loi, euh, reporter des élections législatives. C'est arrivé d'ailleurs oui, plusieurs fois. Mais les élections présidentielles, c'est dans la Constitution. Troisième dimanche du fin, euh, le euh, troisième dimanche du mois de février. on ne peut pas reporter l'élection présidentielle au Sénégal. Ismaël. Pas juridiquement. ñu ne élection présidentielle nee nañu ci constitution bi la nekk ñetteelu dimanche ci weeru février maanaam amul décembre ci constitution bi kenn mënul toxal ay élection présidentielle déglu leen ma encore maanaam élection présidentielle ñetteelu dimanche ci weeru février la Ismaïla Madior Fall leeral na ne kenn mënu koo toxal ci àdduna bi nañu dem ñu dégluwaat ko encore une fois déglu leen ko donc le président il de l'État on ne négocie pas avec. L'ouverture au dialogue, d'où le dialogue. Et vu le avec le démarrage du dialogue et la situation, peut-on envisager un report de l'élection présidentielle C'est pas envisagé la date de la Constitution. Dans Donc, euh, au Sénégal, il est facile de reporter des élections locales territoriales maintenant hmm. Il est facile de reporter des élections législatives. On peut, par une loi, reporter les élections législatives. Mais les élections présidentielles, c'est la Constitution. Troisième dimanche du fin, le, euh, le troisième dimanche du mois de février. Donc on ne peut pas reporter l'élection présidentielle juridiquement. dama encore une fois déglu leen yéen ñëpp sénégalais yi laay waxal ngeen déglu nee nañu élection présidentielle kenn mënu koo toxal ci suñu constitution la nekk. maanaam ci charte réew mi dañ cee bind élection présidentielle troisième dimanche du mois de février kenn newul janvier kenn newul juin kenn newul décembre donc ñun bu ñu fi dof-dofloo ba Macky Sall jëlee ñu fi après day demaat mu ne ah déedéet constitution bi waxul décembre de février la wax bu février jotaatee ñu dof-dofluwaat dof bàyyi leen xel ne Macky Sall 25 février bii mooy dernier jour am en tant que 2 2 avril mooy dernier jour am en tant que président Amérique forcé nañ ko wañaar nañu loxoom tous les pays démocrates ñi gëm yi nee nañu ko wañaar nañu loxoom ne ko mu dellu ginnaaw bu mu toxal jouru élection yi léegi ci ñun sénégalais yi la des bu dee dañ koy nangu ñu dem dégluwaat Ismaïla Madior une troisième fois ndax dama bëgg mu ancré seen nopp yi ngeen xam ne seen ancré. sur deux choses. l'autorité de l'État, on ne négocie pas avec. L'ouverture au dialogue, d'où le dialogue. Et vu le timing actuel démarrage du et la situation, peut-on envisager un report de l'élection présidentielle c'est pas envisagé jusque-là, premièrement. la de l'élection présidentielle, c'est dans la Constitution voilà. que c'est Donc, euh, euh, au Sénégal, il est facile de reporter des élections locales, territoriales maintenant, on dit. Hmm. Il est facile de reporter des élections législatives. On par une loi, Euh, reporter les élections législatives. C'est arrivé d'ailleurs oui, plusieurs fois. Arrivé, oui. Mais les élections présidentielles, c'est dans la Constitution. Troisième dimanche du, le, le troisième dimanche du mois de février. Donc on ne peut pas reporter l'élection présidentielle au Sénégal. Ismaël. Juridiquement. Voilà. lii ñun ñoo ko déggandoo nañu dem déglu. ñun ñëpp ñu daje lépp la suñu doole. ñu ne nag boo tuddee syndicat école. daa nga xam ne kon école bi. boo ko jëlee ci préscolaire ba université concerne na lu ëpp moitié euh, population bi kon lu toll nii bu ñu ko defee réew mi dañu war a jàpp ne kon ñëpp ñi nga xam ne école litteel na leen ak ñëpp ñu nekk tey ci euh, Sénégal dañu war a taxaw am engagement ak détermination pour xeex ak nguur gi ngir mu deltu ginnaaw ci salfaañi bi ñu def loolu nag moo tax ñun ñii ñëpp ñu daje lëkkaloo waxtaan suñu biir ñun syndicat yi ñu ne tey ñu def ba nga xam ne ni suñu ay plan d'action dañ ko tàmbali ci nu mu gën a gaawee te li ci jiitu mooy ajjuma muy suba ñu ne li ko daggee fukki waxtu dañuy wax jànglekatu Sénégal yëpp bu ci kenn fas xànc ak morom ma ne ñëpp toog banque seen yoxo wan nguur gi ne ànduñu ci li mu def tey ànduñu ci suba te duñ ci ànd ginnaaw suba li ñu bëgg nag mooy ñu respecter calendrier électoral bi ñu continuer ni ñu tàmbalee woon pour dem ci élection ak jàmm ak salaam à la date du vingt cinq février deux mille vingt quatre loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar ci nguur gi waaye du ñu nangu li nga xam ne mooy forfaiture bi. mais instant bi moom ça va ça va moom ça. ñun ñëpp ñoo ko déggandoo. sénégalais yi tout sénégalais digne du nom dégg nañu ci ministre Ismaïla Madior Fall mu wax àdduna bi yëpp dégg dégg nañu sénégalais yëpp digne du nom wax ba ci Birima. birima de birima laa leen wax déedéet se noppi juumu leen birima laa wax nañ dem déglu birima. déglu da ngay xam ne réew mi APR la sant wala benn bokk yaakaar la sant et en quoi la ñuy reporter élection yi lu xew xam na ni saa dama région sax à Pape Alé Niang ak les gars de Pastef qui disaient que buñ kenn génn si mbedd mi ndax dañuy bëgg a reporter élection yi c'est un dangereux ñu ngi wax ñaar mot la ñu wax yàqal Amadou Ba. sànq Macky Sall te les traîtres ñoo am nga xam ne. ku ko wax tu un traître ku ko pour élection tu es un traître nan nga mën a joxe Sénégal ne ko Macky Sall jox ko gouvernement illégalement Macky en deux non. bis ñëpp déggoo day légal. c' est ce que pour seen ñoom réew mi yow dañu ci bokk laaj leen saa non yéen acteurs yi. mandat bi. c' le peuple sénégalais moom moom mandat bi. c'est pas les policiers ñoo gën a toog ci réew mi ah képp ku wax report Sénégal. bii de yéen a ko déggandoo lii du man maa ko wax de sénégalais yëpp a wax lii il faut sénégalais yi ñu xam aussi xam nga parfois comme ni ma leen ko waxee euh, lépp loo gis ci réew mi rek yow yaa koy bañal sa bopp maanaam réew mi du réew Macky Sall dama leen di ci parlement wu ngeen dem déglu européen li ñu wax un député européen dans le parlement de l'Europe Madame la présidente monsieur le ministre des affaires étrangères depuis l'annonce dimanche par le président Macky du report de l'élection présidentielle le Sénégal est au bord du chaos. alors que depuis plus d'un an il a multiplié les manipulations pour influer sur sa succession c'est le principe. celle-ci qui n'est maintenant plus garantie. Il a d'abord laissé planer le doute sur sa volonté de briguer un troisième mandat, quand la Constitution lui en autorise deux, puis a renoncé face à la colère populaire. Le pouvoir sénégalais a alors multiplié, dans une pure logique de l'offert, les procès contre son principal opposant, Ousmane Sonko, qui a finalement été déclaré inéligible pour avoir diffamé l'un de ses ministres. Mais les différents partis

arriver aux députés sénégalais. Certains ont d'ailleurs été encore arrêtés hier, et face à cela, la France, patrie de la démocratie, et malgré un douloureux passé colonial, grand ami du Sénégal, ne peut rester silencieuse. Alors que nos échecs, sur lesquels ont prospéré nos ennemis, nous ont totalement marginalisés au Sahel, notre voix, la vôtre, est plus que jamais attendue à Dakar. En recevant Macky à l'Elysée, en novembre dernier, le président Macron Alors comme démocrate et interna euh, internationaliste convaincu, je crois connaître votre engagement, monsieur le ministre, et surtout comme ministre de la France, condamnez-vous clairement le coup d'État institutionnel en cours au Sénégal et appelez comme... Voilà. ñoom. jalo bu yombee. na libéré d'abord boo yi mu jàpp ba pare. déglu leen lii. ngeen booy. xam nga ñun Sénégal sama mbokk yi toujours nee naa leen notre plus grand problème c'est dama bëgg ñu dem déglu reportage français bi ngeen déglu ko bu baax un journaliste français qui parle du Sénégal dem leen ñu déglu je vous raconte comment le Sénégal a progressivement basculé dans la dictature le tout avec le soutien de la France d'Emmanuel Macron le Sénégal vit aujourd'hui une véritable dérive autoritaire pourtant en

Macky Sall, sous la pression populaire, avait renoncé à se présenter pour un troisième mandat. Il avait néanmoins assuré ses arrières en adoubant Sopoula, son premier ministre, Amadouba.

Beaucoup n'hésitent pas à qualifier ce report de la présidentielle comme une sorte de coup d'État institutionnel dans un pays qui, de longue date, a une tradition démocratique. Tradition démocratique battue en brèche ces derniers temps, avec notamment les répressions de manifestations qui ont fait des dizaines de morts depuis Et l'image la plus frappante ces derniers jours, ce sont les gendarmes qui entrent dans l'Assemblée nationale sénégalaise pour

Emmanuel Macron a nommé Macky Sall comme envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples. À cette occasion, le président français n'a pas tari d'éloges vis-à-vis de son homologue sénégalais. On écoute. Dans quelques mois, le président euh, Macky terminera son second mandat. Uh-huh. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité.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 des troubles et des vicissitudes du moment. La France a même choisi son candidat dans l'élection présidentielle sénégalaise à venir. En décembre dernier, la première ministre française Elisabeth Borne a reçu son homologue sénégalais Amadouba, qui n'est pas seulement le premier ministre du Sénégal, mais aussi le candidat à la succession de Macky À cette occasion, la France a décaissé un prêt au Sénégal de 150 millions d'euros pour faire face aux conséquences de la guerre en de la pandémie de Covid. Mais ce n'est pas tout. Sénégal est Déjà parce qu'il y a une présence militaire française. Vous avez aujourd'hui 350 soldats français qui stationnent de manière permanente à Dakar. Et même s'ils ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures sénégalaises, cette présence est un symbole de la domination postcoloniale de Paris sur ses anciennes colonies. La France est présente économiquement à travers ses très nombreuses entreprises, Auchan, Total, Orange, Free. Les entreprises françaises au C'est énorme. Même les entreprises de communication s'en mettent plein les poches au Sénégal. L'agence française Concerto aide par exemple le candidat Amadouba à préparer sa campagne présidentielle. Cette même agence Concerto a travaillé pour le Quai d'Orsay dans la guerre informationnelle qu'il a opposée aux Russes. Évidemment, Paris préfère la stabilité au Sénégal, quitte à fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme et la répression des livre du matériel militaire et sécuritaire au régime du Macky Sall, comme Entendu. des blindés fabriqués par la société française Arcus, ou des grenades de désencerclement fabriquées par la société tout aussi française Acetec. E C'est même des grenades de désencerclement qui ont été utilisées pendant la répression des Gilets jaunes et qui ont été ciblées pour leur dangerosité. Les réseaux France-Africains, de la vieille france

est autre que Aboubacar Ima, alias Petit Boubé, un célèbre vendeur d'armes nigérien très entendu en France-Afrique. Il est notamment proche de la femme d'affaires Pascal Génin Pérez. Alors dit comme ça, le nom de Pascal Pérez ne vous dit peut-être rien. Mais cette femme d'affaires très puissante est très introduite auprès de nombreux chefs d'État de la sous-région. et elle a à son actif un petit service qu'elle a rendu à la Macronie. Lorsque Alexandre a été mise en garde à vue, c'était elle qui, à la de la garde à vue d'Alexandre Benalla, l'a hébergée, ainsi que toute la famille. Elle aurait, selon des sources, joué un rôle dans la disparition du coffre que possédait Alexandre Benalla et qui aurait contenu des documents suspects pour la Macronie. D'ailleurs, Un ami d'Alexandre Benalla s'est installé au Sénégal. Il s'appelle Vincent Crase. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis dans la même affaire de violence policière qu'Alexandre Benalla pour des violences commises place de la Contrescarpe à Paris lors de la manifestation du 1er mai 2000. Voilà. dama bëgg ñun ñëpp allah ñu xeex France man dinaa xeex France dinaa lakk ay drapeau France c'est un crime quand même ñoom def nañ ko crime donc képp ku mën a lakk ay drapeau France attaque France fépp foo mën a ne ak ay intérêt dafa nekk aussi si sa droit parce que France moo nekk di yàq Sénégal encore je le dis en français moi Ousmane Tounkara je serai en désobéissance civique contre la France je vais brûler leur drapeau je ferai tout ce que je pourrai pour attaquer tout intérêt français parce que la France est le, est le pur ennemi du Sénégal c'est la France qui est en train de à être un dictateur dans notre pays que tout les sénégalais sortent sénégalais yépp nañu génn suba sortez massivement sortez massivement demain suñu yaay yi suñu doom yi suñu mag yi suñu rakk yi ñun ñëpp nañu génn nijaay yi na ñëpp génn parce que Sénégal il faut ñu libérer ko waa asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu jërë leen